cay xaritu léegi waaw moom lu ko kali def kii lan la ko kali def laa bëgg xam na li ko kali def rëy na de moom tout le day yàq kali rek lan la lu xew lan mooy problème bi ñoom ñaar sax taxuñ maa jóg déedéet ñoom ñaar wax ci ñoom intéressé wu ma sax man li bëgg a mooy xaritoo maanaam yéen ñi may seetaan yéen a ngi seetlu fan yi ñu génn problème yi fi jot am yëpp bu ngeen seetloo xarit la lépp xaalit la arrière leen kaset bi tuuti ci ginnaaw lépp xaalit moo ko indi yéen a ngi xaritoo ba léegi yéen waxuma nag ngeen vulgaire wala ngeen ñàkk kersa amal ak ñëpp jàmm waaye bàyyi leen xaritoo wala ngeen moytu xaritoo ci mën a xaritoog sa jëkkër boo ko wóoloo xaritool ak moom man digaluma kenn sama xaritoo jëkkër déedéet man yaay lay digal nga xaritoog sa yaay ku am yaay xaritool ak moom ku amul yaay jéemal a des ak sunu borom bi jàpp di julli man réew mi dafa toj xam